ak liñ ko def nu mu ñaawee ba tey dara leerul mooy fàttaliku tamit mbooleem doomu senegaal ñi nga xam ne dañ leen rey dañ leen boom te mujjul fenn Pape Sarr commissariat Thiaroye ñu taal ko ba mu xam amul justice amul paix Elimane Touré bu port ñu rey ko mujjul fenn ak ñeneen ak ñeneen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 ñun ñoo réunion fii dama bëgg ñun ñëpp ñu ànd wax ak Ousmane ne ko usmaan wuyu ci woo wuyu ci woo wuyu ji woo wuyu ji woo wuyu ji woo wuyu ji woo fenn lay daanele lii mooy mot d'ordre bi lii mooy ndigal bi jib Ousmane wuyu ji woo boo buggee sax wuyu ji woo

avec le mouvement national des enseignants de PASTEF président son Sonko dafa jox cër enseignants yi nee na benn dédicace bi muy génn enam benn dédicace la def mu ngi ko def à l'endroit des enseignants on appelle Doudou Dieng